dafa bëgg a jublu ci wax ñi nga xam ne sobe lañ wax leen ñu jege ndax nga mën leen a takk mu ne nag la ci jëkk mooy boo génnee medd maa la waxoon ne la laab na bu bokkut ak moom rek sobe la medd mu waxoon ne laab na mooy lépp lu yàlla bind muy juddoo ci géej dëkk ci géej mën naa am sax bu see génne ñëw ci suuf si ba yàgg ci du ci dara loolu bu xasee medd teew ko laab loo xam ne itam amut deret jooy jam muy sottiku mel ne mbóoti yeeg gunóor yeeg yu bare bari ba tey lu ci medd teew ko laab boo génnee yooyu yaar nag lay des di medd mu laabut mooy lépp lu am deret joo xam ne boo ko jamee mu sottiku loolu bu xasee medd rek sobe la ba mu des doomi aadama waxal nañ ne la ci gën a wóor mooy doomi aadama bu xasee faatu itam teewu koo laab li mu ne ak lépp lu ñu settee woon settee mooy génn rek soo waxee waxin woo xam ne day ëmb ñu limu gannaaw ba nga teg ca ñu ci génne ñenn ca ñooña mbaa sax kenn ca ñooña génne googee koo xam ne bokkoon na mu dugg ci la nga waxoon loolu moo tudd seetee ni ki boo nee ñi tawatoon ñëpp tane nañu tekke ne ba mu des diw ba mu des diw jooju loolu mooy seetee daa bëgg wax ne lu mu ne woon laab na ba mu des nàngam moo xam illaa la ko defee di ki bam ne illal nazira ndare nen bu nëb nen bu soppiku ba yàqu moom laabut lu ma ràññeeloon rek ba ne la lu laab la loo gis mu safaanoog moom rek su ma ko waxut it xamal ne settee naa ko xamal ne génn naa ko wan la ne la moom safaanam boobu laabut ni ki ndegam waxan na lu yoon daganal ku ko lekk te du lekk sobe am sawam ak ay xaytaam laab na kon dana ko waxaat léegi ngay dégg waaye kon lu yoon araamal ak lekkam mbaa yoon nangu na ku ko lekk waaye moom day lekk sobe saw maa xayta yépp sobe lay doon ba tey ndekam waxoon na ne lu dagana lekk lu ne am soowam laab na lu ñu sib ku ko lekk am soowam lu ñu sib la lu nga ciy dégge foofu mooy lu araama lekk moom soow ma sobe la lu ñu sib ku ko lekk it am soowam sib nañu ko ba tey nañu sibee yàpp wa ba muy tudd nen da caa génne woon nen boo xam ne lu ñëdde ko nen wala nen boo xam daa dem ba nëb soppiku yàqu kon yooyu nen nen bu bàyyi ko ci mbedd mbaa nen bu yàqu sobe lañu wàcc ma itam ba muy wax lu laab te ne woon wàcc ma nga xam ne na meloon bañ koy lekk rek la mel biñ ko wàccoo soppiku nga déggee ci ne kon am wàccu mbaam ngal la ñooye moom lu ci xës soppiku sobe la yu ci bari ñuy wax nii doon nga ko xamee ci gannaaw ndax lu ci nekk dañ ko doon leeral bu nu ca tolloo li mu wax ne nag wakkulul muskili ak jëpp aji màndal mooy lépp loo xam ne day màndal te doon ndox boole ca xanaa bañ a nekk lu way xanaa nekk lu ruy muy nekk liquide loolu maase nañ ci ne moom sobe la ñu njëkk ñi ak ñu mujj ñi dañoo woote ci loo xam ne day màndal waaye nekkul lu ruy maanaam nekkul liquide mel ne yamba wala xeeti doom yi nga xam ne boroog la mbaa yu ko nuru nekkul ndox mu ñuy xelli ci la ñuy woote boroom xam-xam yu mujj yi dañuy yemale yooyu ak la nekk ndox moo mën a xelli jàpp ni lépp lu ci màndal rek sobe la boroom xam-xam njëkk yi ñoom dañuy teqale loolee di màndal doon liquide ndox mu mën a xelliku ak doon lu dëgër këng mel ne ab doom walay xob ni ki yàmbaa ñoom dañuy wax ne su dee ndox ma moom sobe la te it ku ko naan mu màndi ak mu ñàkk a màndi ñu war koo gétam kenn du ko sañ a jiliwaale itam ndax sobe la waaye la nga xam ne nekkul am ndox ni ki doom yeeg xob yi moom jëmm ja laab na mën nga koo julliwaale te it bu dee ci wàllu jëfandikoo mën nga caa jëfandiku lu faj sa lor te du yàq sam xel niki buñ nee nangam drogue la bu dee ci ñoom daañu nangu nga jëfandikoo ca lu lay faj te du yàq sam xel du yàq dara ci saw yaram mooy du yàq dara ci sa wér yaram la ci araam rek mooy jëfandikoo ca lu yàq sam xel mbaa lu yàq sa wéru yaram loolu moom ku ko def buñ ko géttal yi ñu géttale ku naan sàngara waaye àttekat dana ko yar ba bu ëllëgee mu bañ koo def nam ko yare nag moom ci boppam rek moom àttekat bi moo koy seet boroom xam-xam yu mujj yi ñoom dañuy maasale rek lépp luy màndal mu mu nekk liquide ak mu doon leneen lu dëgër ñoo yemoo araam na sobe la it te ñoom dañ cey àtte àtte yu diis a diis ba boo delloo sax ci li ñuy wax tux ni ki tux cigarette ñu njëkk ñi dañuy wax ne am nañ ca wóote ci ndax dagan na wala araam na waaye nag ñoom buñ koy wax dagan nga itam dañ cee génne ay tolluwaay yoo xam ne moom day araam du daganati mel ne bu dee ci biir jàkka wala fu mbooloo mi tase bu dee ci jàkka jàkka jaa tax bu dee ci fu nit ñi tase mbooloo ma fay tase ñoo tax ndax bu jëfandikoo am tux te du moom rek am na keneen ba ñeneen ñu fa nekk mën nañoo loroo ca loola mel ne ci wax ñooñu bu wéetee moom kenn képp te nekkul ci jàkka nekkul di jàngal xuraan ba muy tudd yàlla kon mën naa tux jëfandikoo cigarette li tax nag ñi ubbee ci sunu jamono jii ñi araamal xeeti tux yi doonte sax tux mu woyof mi la dañoo gis li ci xam-xam bu yees wane ci xeeti lor mel ne tux bokk na ci nga mel ne tux bokk na ci nga xam ne day joxe cancer boobu nga xam ne xamaguñu daanaka lu koy faj bu wér la ne moom dana koy joxe ak yeneen jàngoro jàngoro lu bokkut ak yàq gañ ci yàq alal ak ne lislaam fonki alal bañ ko ko yàq kon boroom xam-xam yu mujj yi daanaka xaw nañoo maase ci araamal tux moo xam tux mu woyof mi la ni ki cigarette mi wala tux mu mag maam ak ni ki yàmbaag yemel ne moom dañ cay boole itam lépp luy xeetu dorog mën a yàq am xel mën a yàq nit rek dañ koy araamal te di ca àtte àtte yu diis a diis dañuy àgg sax ci wax naa lu mel ne kafeek ataaya ak xeeti naan yooyu nga xam ne jëmm ja dagan na mën na am lu tax ñu araamal ko aaye ko niki bu ko kooko naanee faatu mbaa bu ko naanee awee ci wéradi goo xam day yàq aw yaramam mbaa bu ko naanee mu yàq am xelam wala boog ca nañ koy naane jaxasoo góor ak jigéen bu wërta am da cay am yooyu day tax jëmmi kafe ga wala attaay ja ak yu mel noonu araamutoon waaye loolee ca feeñ tax ñu araamal ko aaye ko diine dafa ñëw ngir sàmm bakkan yi sàmm xel yi sàmm yaram yi sàmm alal yi lu ñu gis nag muy yàq yooyu rekk ñu daldi àtte aaye ko bu nu delloo ci jamaad jamaad dañoo waxoon ne bu dee ci fiq mooy loo xam ne lu yàlla sàkk la amul róow te it bàyyi ko wut ci lu am róow yooyu nag dañoo bari lool lool ñu ne woon loo ci xam ne du màndal rek dañuy jàpp ne lu laab la loolu tax na boo liggéey ci xeeti machine yi muy oto muy leneen essence baag gasoil beeg huile beeg lépp looy jëfandikoo ci yooyu rek laab na bu la taqee mën nga koo julliwaale dara nekku ca boo koy liggéey ci dénk yi wala weñ yi itam yépp noonu la xeeti kolyeet yépp laab nañu waaye nag da ca mat a seetlu mooy bu la taqee taq goo xam ne boo sottee ndox ndox ma du jàll ca deru yaram wa faw war ngaa dindi loola booy jàpp wala ngay sangu farata wala ngay dindi fu sobe nekk ci sa yaram ni ki booy dem ca wana wa dem naa dem ba bu dee kuy bind sax am lu muy fare mbind ma te mu am doole ba fu mu taq ci yaram wi deetee ndox ma du jàll faw war na koy dindi bu dee bëgg a jàpp mbaa muy bëgg a sangu farata mbaa sobe taq fa te mu bëgg a dindi sobe sa ema yi noonu la mel ema yi jëmm ji laab na waaye li tax jigéen war koo moytu mooy su xasee emaayu emaay bi day téye ndox mi du jàll ci wewa te kon dana sañ balaa jàpp mbaa balaa sangu farata def emaay bi waaye bu waree jàpp rek mbaa mu war a sangu farata faaw mu war koo dindi yu mel noonu yépp bu ñu nee laab na itam bu taqee ci yaram wi te kooka war a jàpp mbaa mu war a sangu farata mbaa mu war a dindi sobe te loolee nar a dox diggante ndox meeg deru yaram woo mbaa weewa faaw ñu war koo dindi kon boo delloo takk ne lépp lu yàlla sàkk rek te defu ci agro ba tey bàyyi koo wut ci lu am agro rek te du màndal xamal ne lu laab la nga xam ne bu soppee ndox wala ndox ma wal romb ko itam dara la soppi ndox ma lu laab rekk la ñu seet nag bu fekkee doomi aadama mëntoon a moytu ba loolee du soppi ndox ma kon bu soppee ndox ma itam du ca wàññi dara mën na caa jaamu yàlla na mu ko bëggee bu fekkee mëneesoon na koo moytu nag loolee soppi ndox ma nag kon dana ko yàq ci wàllu jaamu yàlla mboolem matière yi nga xam ne moom la yàlla liggéeyaale ci suuf si dañu bari lool ki xorom mi nga xam ak xeeti xor yeeg weñ gu ñuul ak yooyu yépp lu ci soppi ndox rek ci kaw ndox mi daa bàyyi ko ca suuf fa loola nekk wala mu wal romb ko ba ci xeeti gàncax yi ku ci neex xeet wala mu wex xaat ndox mi wal rek romb ko wala ndox mi taafam nekk yooyu yëpp du yàq dara ca ndox ma waaye ci misaal nag li wala fii def boo demee dagg li ñuy wax ceeb ceeb boo ko wutee def ko ci sa ndox ndax bëgg mu neex xet dana ko yàq ci wàllu jaamu yàlla waaye bu fekkoon ndox mi wal fekk ceeb ca déeba ceeb la soppi ko du ca wàññi dara fabalatu ndes it mooy rek la génn ca saw wala neefara xeeti xayta yooyu lii waxan nañu ko ci kanaaw ban ca tolloo lu yàlla araamal ku ko lekk mbaa yàlla sib ku ko lekk am sawam ak xaytaam sobe la li ki fasak baxlaak mbaam ak liy siba lekk mel ni muus ak lépp luy fàdd leneen di ko lekk rek luy siba lekk la ci yoonu Malik moog lu araama yam saw maa xayta ya sobe lay doon jàllaa la mooy bépp ndundat buy jëfandikoo sobe dañu ne woon lu yàlla daganal ku ko lekk te du jëfandikoo sobe sawam ak xaytaam laab na mu lay takkal ne la nag lépp loo xam ne yoon nangu na ku ko lekk waaye day jëfandikoo sobe rek moo xam da koy lekk moo xam da koy naan ne ki ganaar am sawam sobe la ay xaytaam sobe la ndegam dañ koy bàyyi muy dem suñ ko yeewee nag mbaa ñu tëj ko di ko xonte ak di ko wëgge lu laab nag kon saw ma xayta yi lépp laab na doomi aadama it am sawam ak xaytaam yépp sobe la saw daa ak lumbu am xayal it lañu waxoon ne laab na waaye lumbu xeeti lumbu yi moom sobe la wa waddiyun ak waddiyu waddiyu ndox la mu weex moo xam ne day far boole ja su fekkee ne kooka dafa amee ab sedd mbaa mu tawatoon ba di door a tane yaram wi manqué deret mën na am bu demee bay saw ba saw mooy bëgg a jeex mbaa sax mu saw ba noppi ba toog bay jàpp ndox mu weex moom te far daal di génn moom nag sobe la aw damun wala deret masfuuxun juddi juñ fis deret dañu fis sobe la mooy deret ji nga xam ne bu ñu rendee rek mu tàmbalee walwali bàyyi ko fu nekk ci yaram wi wala bu yaram wi gaañoo rek mu daldi tàmbalee sottiku wala sax dereti mbërëg wala dereti wasin wala dereti opéré buñ ko opéré wala ñuy fees rek gis deret jekki-jekki di sottiku yooyu yëpp dereti sobe lañ deret ji nga xam ne moo laab te nga weesu woon ko mooy ji nga xam ne dañoo dagg ak sa diit tax mu nàcc wala muy deret ji nekk ci xol ba wala ñuy dagg yàpp yi muy nàcc jooju moom laab na bu ñu nee dana laabit day fekk rek mu bàyyikoo ci lu ñu rendi waaye su bàyyikoo ci luy dund moo xam nit la moo xam leneen la sobe lay doon su bàyyi ko ci loo xam ne méddam sobe la it ba tey sobe lay doon kon bu ñu nee deret ja laab mooy ja nga xam ne la ko tax génn sabab la nit ki dañoo xotti ak sadiit mbaa ñu dagg ak sadiit mu nàcc mbaa ñuy daggat yàpp yi muy nàcc mbaa deret ja nag ca xol ba day fekk loola doon lu ñu rendi waaye bu loolu nekkee luy dund deret jooju sobe la ca moom bu doonee lu meddi it noonu deret jooju sobe lay doon ca moom masiyu ak masiyu masiyu muy ndox mu weex moom nga xam ne mooy génne ci sawkaayu góor gi bu fekkee day xalaat mbirum jote góor ak jigéen mbaam doon ko xool ba bànnee xam ñëw ndax mu weex may génn tey loox moom du far day wuteeg wëdd yu ndax moom du far te wëdd yu day far ak mën yu yett yooyu sobe lañu doonte sax daa bàyyi ko ci lu dagan a lekk te du lekk sobe it yett yi moom madi yu wadd yu mën yu sobe lañ koy jàppe ci yoonu Malik aw sadidun wala dëtti wànjar xayixun ak dëtti kese dëtti kese ak dëtti wànjar ñoo ci yemoo lu ci nekk sobe la moo xam day zeytoon li ñuy wax olive wala muy diw moo xam diw gu ñuy lekk la mbaa diw gu ñuy taal di ko niitoo ni ki pétrole ak lu diw diwee daal wala xeetu nen ak lu nen nene ak muy xeetu yàpp ak yàpp lu mu mën di doon su fekkee lañu ko xorome ba mu saf ca ba dugg ko bu wér a wér mbaa lañu ko jaxaseel mbaa bu dee nen lañu ko baxale mbaa bu dee yàpp lañu ko toggee day jëmmi sobe li ki tubaab yi ni ñuy jëlee sàngara di ko toggee wala boog mu jaawale ko jël am saw wala deret togge ko lam doon togg mbaa sax jëmm je du jëmmi sobe waaye sobe dem na ca ba soppi ko bañ mën ko caa xàmmee ni ki ndox mi mu nulivie ca ba muy baxal nen ya mbaa bu muy togg yàppoo day ndox moo xam ne sobe soppi woon na ko bañ mën ko caa xàmmee lu mel ni lii moo xam zaytoon baa moo xam nen yaa moo xam yàpp waa doomi aadama mënatu koo jëfandikoo mënista jël ndox mbaa saabu mbaa dara di ko ci raxas bañ jàpp ne laab na li ci des kay mooy jox ko ak jur mu lekk waaye doomi aadama mënu koo lekk mënu koo naan mënu koo jaay ndax faaw la ñuy jaay dañuy sart mooy lu laab te lii moom laabut waaye nag nga seetlu li mu wax ne zeytoon ba dañu ko xorome loo xam ne sobe la ba mu dugg ko ba ba su ko raxas ba mu set wala diw ga sobe dem ca jaxasoog moom mëni su koo tàggaleeg moom wala nen ya mbaa yàpp wa lañu ko toggee di jëmmi sobe wala muy loo xam ne sobe soppi na ko ñu togg ko nag ba mu ñor mbaa ba mu dugg ko bu wér-wér booba lay yàqu waaye bu fekkoon ne zaytoon ba wala nen ya wala yàpp wa dafa daanu ca sobe sa rek waaye toggiwuñ ko ko baxale ko ba mu dugg ca boo ko raxasee rek kon mu set mu daal di baax tey boo yoroon aw yàpp mbaa dara mu daanu ci sobe da ngay raxas ba mu set rek mu daal di baax ay nen noonu leneen noonu aw ñam woo xam ne dafa ruy mel ne am ñeex wala am soow wala lem goo xam dafa ruy moom daal mboolem xeet yi nga xam ñu koy lekk te mu def ndoxum liquide ruy bu ca sobe xësee dem lu mu tuuti tuuti ak lu ñam wa bari bari bari yàqu na ci jëfandikoo doomi aadama nga xam ne boo defoon biñuwaar ba mu fees ak njarum soow wala am ñeex lu ñu lekk daal nga seen tuuti sobe dem ca la muy tuuti tuuti yàq na ko ci jëfandikoo doomi aadama mënisu koo lekk mënisu koo jaay mënees na koo jox ak jur rekk nag mu lekk nga bañ koo jaawaleeg ndox ma ñu waxoon ne dañu koy sib mooy ndox moo xam ne dafa yem ci looy jàppe ndegam na ngay jàpp mbaa looy sangoo farata ndegam na ngay sangu farata tuuti sobe dem ca te mënees su koo xàmmee ñu waxoon ne soo amee meneen sib nañ ko soo amul meneen kenn sibu ko ñu ne woon sax bu dee ndox mu bari moom sobe dem ca waaye tuuti la mënees su ko jaa xàmmee te ndox ma daa bari woon moom sibuñu ko sax loolu ndox ma ci wàllu jaamu yàlla bu ko jaawaleeg fii nu toll ci ñam ruy wa sobe dem ca lu mu tuuti tuuti rek yàq ko ak lu ñam wa bari bari bu fekkoon day ñam woo xam dafa dëgër nag mel ni nga ràcc cere rek janax dee ca kaw mbaa seneen sobe dal ca dañuy seet bu fekkee yàgg na ca ba yaakaar nañ ne war naa sar ci fépp fépp fépp ba tey moom it jox jur mu lekk rek lay mën waaye doomi aadama du ko mën a jëfandikoo faxaar boomar moom la ñuy wax ban bi ñu lakk di ci defar njaq yi lépp ndab lu mel noonu nga xam ne boo ca sottee am ndox mbaa leneen loo xam ne daal liquide la dafa ruy dem rek ca kaw waaye day sar dugg ca biir boo seetloo njaq yi boo ci defee ndox da nga di gis muy seeb ba nga gis tooyaay bi ci bitti lu mel noonu la ne buñ ca defee sobe soo xam ne dafa ruy mel ne deret mbaa saw moo xam ne sobe la mbaa sàngara ba mu xas dugg ca biir nga xam ne yemul ci kaw rek dafa dugg ca biir ndab lu mel noonu deesu ko mën a raxas ba mu set loo ko raxas raxas du tax mu set xanaa rek def ko ngunul ganaar mbaalu ko nuru daal lay man bu dee ndab lu dëgër nag loo xam ne moom loo ca mën di def ca kaw rek la yem mel ne ñu liggéey ko ci encassable wala ci weñ wala xeeti këll yooyu nga xam ne la nga cay def du jàll ci kaw rek la yem moom boo ci defee sobe itam mbaa sobe rëcc ci dem ca it da ngay raxas rek bu baax ba mu set bu aajowoo set lii saabu nga setlee ko saabu rek raxas ba mu set waaye ndab la dara si kucca bu setee rek bu setee rek mën nga koy jëfandikoo na nga ko bëggee ñam woo xam dafa dëgër bu ca sobe demee dañuy seet rek la ñuy sikki sàkk ba xam laal na koom laalu ko ñu tonni loola sànni la ca def ñu lekk ko moom lay wax ci way wii naa ndegam ñam yi moom dafa dëgër mel ne cere mbaa lu ko nuru te sobe si yeggu ca ba ñu jàpp ne sar na ca fépp fépp kon bu ñu tonnee sobe sa ak la ko wër ak lañ defe ne rek sobe sa war na koo laal buñ ko tonnee dindi rek jox ak jur da ca des mënees na koo lekk mënees na koo jaay waaye boo koy jaay na da ngay leeral ka nga koy jaay ne ko nangamkat xewoon na ci ndax daam ñoo xam dañuy seexlu lu mel noonu lépp loo xam ne sobe da caa dem ci xeet yooyu ruuy mi xeet liquide yi ban wax ne doomi aadama mënatu koo jëfandikoo mu ne mën ngaa seet boo ca mënee jariñu lu jëmul ci wàllu doomi aadama jëmul ci jàkk mën nga ko caa def li ki bu dee lu mel ne xeetu pétrole sobe dem ca ba tey mën nga koo taal ci làmp def ko ca sa bitig wala sa néeg waaye boo ko def ci biir jàkka ja mën nga ko mën nga koo teg sax ca biti jàkka ja muy leeral biir jàkka ja waaye bul dugal jëmmi làmp ba ci biir jàkka ja ba tey bu dee diwu ñoro ba xeet yi diw ci des ñu mën koo diwi ab machine wala yooyu ba tey mën nga koo diw ca machine ba waaye daal doomi aadama moom du ko mën a jëfandikoo ci lekk mbaa naan jàkka itam war nañ ko ormaal ba dara bañ ko caa laal maanaam dañuy teqale jëmmi sobe ak jëmmi loo xam ne du sobe sobe da caa dem rek ba soppi ko ñu àtte ko àtte sobe niki aw ñam sobe dem ca wala ak diw yi nga weesu woon léegi loolu mooy mutana gis aji sobewu loolu lañ mayee boo ca mënee jariñu lu ajuwul ci sa bopp waaw lu ajuwul ci doomi aadama ak jàkk nga jariñoo ko wàññiwul dara mu ne nag jëmmi sobe ci boppam moom duñ nangu kenn jariñoo ko ni ki bu ne lii sàngara la wala lii deret la nga xam ne jëmm ca sobe la des ko mën a jariñoo ci genn genn wet lu may nag jëmmi sobe si daañu may ñu def ko li ñuy wax ak tos maanaam sotti ko ca tool ya ndax suuf sa baax neex a bay deret ba tey waxoon nañ ne sobe la waaye nangu nañ ku mayee deret ndax lool ji ci nekk ci buñ ko defut ak sàmm gi ñuy sàmm bakkan ci buñ ko defee moo tax moo tax wax ji gën a wóor mooy nangu nañu ku mayee deret li muy doon doon sobe